mbokki seetaan DTV dellu siwaat nanu GTV dellu siwaat nanu di àndaat ak ci seen émission bii di Al Wasaaya ñu koy amalee fii ci GTV altine ba alxames di sant di gërëm mbooleem ñi seetaan fu ñu mën ci nekk ci biir réew mi ak ci biti réew di ñaanal ñëpp jàmm ak wér ak sutura ak ak mucc yàlla na ko yàlla boole defal di jaajëfal sunuy invité yi démb Adja Ndeye Diop jiite ànd sàmm jikko yi waaye tamit xaaj njawar njaay ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen ñaanal ñi taw a tëdd ci kër yi ñu taw tëdd ci lalu hôpital yi ñu taw di doxaaleeg seen jàngoro mënuñoo tëdd ndax bu ñu tëddee yu bari tëdd balaa noo tëdd yal na yàlla fëgg seen bopp di ñaanal ñu nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekk jàmm delluwaat ci seeni njaboot fekk leen ci jàmm di ñaanal ñu nekk ci xat-xat yaa na leen ci sunu borom génnee ba ñu delluwaat ci seen i rawatina sunu mbokk yi ci kaso yi yal yàlla génne leen fa ba ñu delluwaat ci seen njaboot ñu faatu te di ci bàmmeel yi yal na nu ànd ak Seyda Zeyna Fall wax ay bi Seyda Adama Seck séddoo di yaa layta qawmi yaalamuuna bima xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin di ñaanal ñëpp koorug jàmm yal na yàlla nangul nu li nu wooragum li nu deseendi mu may nu wér a kàttan guñ ko wooree te bu nu ko wooree mu nangul nu ko yàlla nañ bokk dajé lele guddik laylatul qadri ngeenele ci nek ak barké yak lèr ya yalla bu mu umb ñey wori fekk ñu set bak wécc ak bakar duy ay ngeenel ak i yiw ak lèr ba feesal del yalla yalla bolé ñu ci ñoño sant nañu ñep gërëm leen ñaanal leen di fas yéene tey rek teunk tem bi nga xam teunk tënk buy tinkiku la ndax tabarakallah man euh, fek émission ndénkaane mi nga am gannaaw koor gi actualité bi day dellusiwaat ñuy waxtaanee ci gouvernement beeg seeni doxalin ak ya waaye gannaaw dañoo toll ci gunge gunge ak euh, dalal ak tatagal wala yàpp njiitu réew lu bees li nga xam ne moom la sénégalais yi tànn tabaarakallaahu ñuy waxtaanee wareefu njiit fu njiitu réew li ko war Sénégal. ak circonstances yi nga xam ne moom la ñu toll réew mi tollu fa àdduna bi tollu fa ci wàllu crise économique waaye crise boobu crise la ci biir crise yi crise des valeur démb dugg nañ ci lu yaatu waxtaan ci ak soxna Ndey Jóob ci wàllu ànd sàmm jikko yi te incha allahu taala dinañ jël siwaat ci yi ñu waxtaanee yëpp ci fan yi ci ñi ñu fi dalal du yoon wu njëkk ñu leen di dalal ci alwasaaya wala boog ci ndénkaane tabaarakallahu Momadou Moustapha Fall tabaarakallaahu di eh, jàmbaar ci waar wi rawatina ci média di ci def liggéey yu am solo rawatina di dalal ay ndaanaan ci jàngkatu alquranul karim yi tabaarakallaahu ñu am mbégte tey bokk ak moom émission bii di alwasaaya ci thème bii nu yëkkati waaye ki nga xam ne mooy Abdourahmane Lay moom it du yoon wu njëkk ñu ko fi dalal ñu am mbégte dalalaat ko tey ngir yàllaak ak eh, thème bi nuy waxtaanee tolluwaayu réew mi. Oustaz Saïd Diallo sunu consultant moom itamit teewaat na ñu amaan mbégte bokkaat ak moom jataay bi su ko defee dañ koy bàyyi rek mun nuyoo ñu dalal sunuy gan dugg ci waxtaan wi Oustaz Saïd alhamdulilahi rabbil alamin summa salaatu wa salaamu ala nabiyina muhammadin min nashbi hashimin fa naqruhu min tahirina wa tahirat hatantaha bi tahirina wa tahirat وعلى آله وصحبه ومن والاهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله دي باي خل جي تي في خل دي عندك موم روتينا سين إميشون بو مكبي دي الوسايا دي عندك فضيلة الشيخ أستاذ مختار سار نيغلاي فاي نيو دي واخ امين تي نياني خامني نيان نغاكو di jaajëfal eh, ñi nga xam ne àndoon nañu ak ñoom ci semaine bi ba tey ñu nar a eh, tënk tënk goo xam ne dafay tinki tinki goo xam ne dafay tekkeeku ngir réew mi tekkeeku ci buumub jaam ak yu ni demee di bàyyi xel soxna si nga xam ne mu ngi eh, yaram bee ngi am féex ñu bañ koo fàtte ci ñaan. incha allah sunu borom subhaanahu wa may wér képp koo xam ne yàlla dogal na yaram bi sutante jafe-jafe yàlla wëlbati ko def ko yomb-yomb njàqare sunu borom subhaanahu wa taala wuññi ko euh, di ñaan kër gi ñu nekk sunu borom subhaanahu wa taala yëkkati ko bi barakati wa rafanaahu makaanan aliyan yomb na yàlla yàlla na ko yàlla def incha allahu rabbi yaa oustaz jërëjëf oustaz Saïd Cheikh Mamadou Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoog ñi seetaan GTV auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi lay nuyu seexal Al Mukhtar mm-hmm. euh, euh, di kontaan ci euh, invitation bi mm-hmm. di wax rek yow moom sa liggéey fu ñu ko natt rek ci Sénégal weesu na ko mm-hmm. dama la waxoon keroog rek nit ñu mel ni yéen état moo leen waroon jël di leen fay mettre leen dans de très bonnes conditions ndax seen participation ci tabax Euh, li nga xamante ni mooy ay valeur ci ci ci ci Sénégal mm-hmm. kon ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax di la ñaanal yàlla yàlla yokk taxawaay bi mm-hmm. euh, te te aar la mm-hmm. ndax sa liggéey yow ak soxna Zeyna Zeynab Fall euh, yéene woon na yéene goo xamante ni defe naan li ngeen jubbanti ci ay jullit yu sàggan yu mel ni man kenn mënu koo wàññi kon dañ laa amal njukkal bu baax a baax a baax di nuyu saaxit sama xarit macha allah di eh, nit ku baax nit ku oyof ku bëgg li muy def. Mm-hmm. koo xam ne tamit eh, mu ngi ci waar wi di ci liggéey liggéey bu rëy rëy rëy ñu koy gis ci eh, plateforme yi ñu créé di ko partagé lépp rek pour xam-xam. ak mm-hmm. mbaax sax Sénégal kon ñu ngi koy gërëm Abdourahmane lay mm-hmm. tey la ñuy soog gisee xam naa ne waaye xam naa ni. Euh, fii kenn du fi invité ab camo mhm. kon euh, xam naa ni kàngam la mhm. kon daal man maay camo ji fii mu ne <laughs> di ko nuyu di ko jox wàcc waayam bu baax a baax uh-huh. euh, di nuyu waa GTV di ñaan kër gi yàlla na fi yàlla def barke amiin def fi tawfiq ak tey amiin def fi lu weesu seen njort ndax tey bi ma fi duggee vraiment gis naa ni effort bi ñu fi def mm-hmm. mbégte rek a ciy topp ak mm-hmm. réussite Cheikh Makhtar macha jërëjëf eh, amna amna solo ñu bayyi sëñ Abdourahmane mu nuyoog ñi sétane ci tv assalamu alaykum wa rahmatulah. ñu ngi lay mm-hmm. di contane bu baax baax ci eh, invitation bi. Mm-hmm. di nuyu eh, Serigne Moustapha. Mm-hmm. di ko delloo nuyu moom itam. di ko wax ni ñu ngi koy suivre. à travers aussi plateforme yi. ndax Sénégal mom waxkat yu baax yi bari nañ fi. waaye wanakat yu bax yi ñëw fi néew. Mhm. malheureusement. Mhm. donc ñing lay féliciter ci taxaway boobu. di nuyu aussi oustaz euh, Saïd bu baax. Mhm. taxawayam di nuyu waa. GTV yëpp. Mhm. gis nañu màkkaan bi macha allah. Mhm. yal na yàlla dolli barkeel. liggéey bi daf barkeel taxawaay yi. amiin yaa eh, di nuyu nag sénégalais yëpp fu ñu mënti nekk. ci mhm. réew mi ak ci bitim réew. Eh, di leen ñaanal li li leen oustaz ñaanal léegi. mooy tawféex ak taysiir. kenn ku nekk fi mu nekk. yàlla dolli dëgëral bànqaasu sunu réew. dolli fi jàmm ju bëree bëri. amiin yaa rabbal aalamiin Euh, jërëjëf euh, Cheikh Abdourahmane Oustaz Saïd euh, ñi ngi nekkoon fan yëpp ci wareefu njiit ak li xaar gouvernement bu bees bi tey première fois gis nañu son excellence monsieur Diomaye Faye ak son ñaari son excellence a ah, ci pale bi <laughs> ndax Macky ba léegi moo nekk tamit moom it son excellence bala de incha allah tey gis nañ leen mook mi ngi noonu image yaa ngi noonu mook président Ousmane Sonko ñoom ñaar euh, ñu ñu gisee ak président Macky Sall maa ngi bind léegi sama page di wax ne benn image boo xam ne nii junniy kàddu mhm. junniy kàddu lay wax daaw ci heure bii ba siiroo xar-xar yi mu nekkoon ca kaso ba euh, Ousmane Sonko tongal gi daaw ci heure bii nga xam ne heure bu yeewoon ñu ne ko tey ngay dem kaso dina bett na ma euh, ren ci heure bii ci koor gi ñu dugg pale ak président Macky Sall ku ne di muñ ku ne di muñ joxante loxo tok waxtaan ku mu warul nee jaratul jaratul warate kat di la war leppay jeex image bi war jangal kep ku nekk ci xat-xat fi ñu toll ni nga naan ndax dana jeex ah kay gëmal ne dana jeex ndax ku ko waxon ñi ñu ne nga leen dewen ci heure bi yeen ngay dugg pale ñu leen di xàllal yoon pour ngeen war a ñëw installé fa ñu ne la mukk loolu mënul nekk waaye nekk na tey yow mi nekk ci feebar yow mi nekk ci kaso yow mi nekk ci ñàkk yow mi nekk ci jafe-jafe yow mi nekk ci xat-xat yow mi nekk yow mi nekk lu mu manti doon image bii tey war na am lum la lum la jox waaye tamit yow mi toog ci donkaasi gi toog ci kaw yor lépp yor alal ji yor doole ji yor lépp image bi war na la jàngal ne léppay jeex ko waxoon président Macky Sall bi ñu ko informé wala bi ko renseignement yi joxee ne Basirou fekk nañ ko biroom yóbbu nañ ko dikk bi ku coupé woon téléphone bi am ku ko woo ne ko man de yàlla daf ma woon Basirou daaw ci heure bii dana la wuutu foofu ci pale ba mu coupé waat ko ne ko kii waxut lu am boo <laughs> ko Sonko de waaye bu ne ko Basirou danaa kii xanaa dafa dof bu demoon Sonko sax mu mën a wax ne est que mën na nekk wala mënul nekk te ñooñu kooku ñu ngi ci dossier am pareegul <laughs> waaye ku nekk woon Basiiru Jomaay Fay moo lay wuutu mii ñu yóbbu dig mm. ci weeru koor gi téye ko ci la ko digi déwén ci heure bii dana ñëw dugg ci pale bii nga koy waaj a jox kele yii mu ne la loolu mënul nekk waaye tey nekk na ku dul président Macky Sall ba ci président ba Bassirou Diomaye fay boo ko ko waxoon mm. mun la waxal leneen xanaa da ngay wax Ousmane est-ce que juumoo est-ce que jaawale woo ma ak Ousmane mm. wax naa ko fi keroog dama koy fàttaliwaat rek biñ ko jëlé ci birom yobbu ko dik ko ko fekkon dik ne ko muñal li yeb dana jeex bu soobe yalla dewen ci heure bi yaay doon président de la république dana siggi xolaat la ne la waxo lo xam wa yow ay ay calmant mu nga dana la wax ne ay kalma nga may jox wala ki est-ce werna na ko ya ko doon am lu li nga amone tiis ci na sen borom keur yobbu nañ ko dik ñang koy bëgg jallale kasso muñ leen ñuy joye ka am naxar nga ne leen dewen ci heure bi yéenay doon première dame ñu ne la waxal leneen est-ce que juumoo ñoom aana jamanka kay xanaa xëy na ngay wax est-ce que loolu la ñuy ñaan waaye Basiiru moom amul luy wane ne moo war a doon président de la république mais nekk na tey loolu leçon yu bare bare bare lañ ci mën a jànge ba tax na àdduna ngoog qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudillu man tashaau bi yadika alxayr innaka ala kulli cheyin qadir wallaay jooju boo ko jàngaloon ci ginnaaw ñaari yi yëpp côté Macky côté Sonko ku nekk dana am doute naan est-ce que dana demee nii tey loolu moom dana ami mais est-ce que nii élection 2024 yu ñëw sedd guy bant dammut fetel takkut bakkan rotut ñu nek ki gagné gagné na ñañu gagné félicité nañ ko ñepp nangu amul contestation amul dara sëñ bi loxo dugu na ci loxo yuñu gisul nak loxo yuñu gisul sénégal amna na borom yi loxo yuñu gisul <laughs> yu dugu ci mbir yi te ñooñu yalla ngi leen di déglu yalla ngi leen di déglu gis nga mbir yi ni mel ni miracle ni ci li feñ la amé miracle bo xamné ne bu nëbb la boo ni bëdd ko gis mais xel daj Sénégal a ngi noonu wéy di doon Sénégal ba tey nañu sant yàlla ci li ñu yàlla defal te nangoogu ko yàll na sax dafay ñu gën a góorlu rek bu ñu góor góorloo ku am yéene Basiru mi wallaay bu amee yéene ju sell te gëm nañ ne yéene ju sell la indaale pour defar Sénégal xaw ma lu ko dul gunge mais duy allahuma mag ñi ñaan nañu ba bu doon suuf la tos nañ suuf si ba suuf si génnee lu ne gox bu nek ci senegal samp nañ fa daara rëdd nañ fa jak ña ngay tudd yàlla ña ngay alquran ña ngay wadifa ñay jang qasida ngi jang qasida di julli ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan ba suuf si tos nañ ko pétrole bi genn gaz bi genn zircon bi genn lepp genn ci suuf si ku ñew am volonté rek rew mi dem ci kanam lo rek a tax na lolu mo waral sunu waxtaan sa san nga ubil sunuy gan tey bëgg naa ñu ñëwaat nag ci beneen wàll geneen wàll mooy yi xaar président bokk na ci voté nañ fi loi ab amnistie Sénégal yi lu ñu wax wàllu développement développement du ñu fàtte li fi jaar ci ginnaaw donte ñu ngi woote wàllu jàmm ak jàmmoo juboo réew mi ñu delloo si waat yu bari waaye ndax juboo googu dañ ko waral lal rek ci ne nañ juboo ba fàtte bakkan yi rot ñoo ñu lan moo leen di récompenser lan moo leen mën a delloo si waat seen bakkan lan yaay yooyu di jooy seen doom luy fomp seen ronkoñ ndax massa rek doy na wala sax ñu xam nag xam ku rey seen doom sax nag donte après dañ koy xam ba noppi baale ndax loolu tamit warul bokk ci yi nga xam ne nii gouvernement bu yees bi war na ko delloo siwaat ndax bi ñuy wax wàllu loi amnistie bi bokk na ci li camp wu ñii falu tey doon wax mooy nañ ko def lu loxo def loxo mën na koo dindi waaye baat boobu fan yi déggu ma ko lu bari est-ce que dañu war a ñëw bàyyi luwaa bi noonu mu continuer ñu fàtte lépp lu fi jaaroon deux mille vingt et ba tey wala war nañoo delloo siwaat lu du tudd fayantoo nag fayantoo leneen la waaye leeral ba nga xam ne ñoom ñii tey ëllëg la ñee def duñ ko ñemee def lu ko mooy euh, keneen ndax bu ñëwee buñ bàyyee li weesu woon rek mu weesu keneen tamit moom it du def lu def ba keroog muy bëgg a jeexal moom it voté lu loi effacé lépp loolu noonu le euh, loo ci xalaat euh, di santaat yàlla bu baax ci laytaay bu am solo bi nga xam ne laytaay nga ko jotaay bi Eh, bi ngay wax sama xel dafa dem ci ñaareelu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye da ko takk benn weer ñu tëj ko xam naa ni dégg na lu ne dafa gaaf biñ ko takkee la dugg prison mu muñ ko benn weer yàlla ne ko déedéet gaafuloo ndax inna tatayarna bikum boobee waxoon nañ ko ay yonent oustaz Maxtaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund na lu mel nii nga xam ne dund na ko ñi ngi koy dund fii saxaabatul kiram amul benn xeetu mettit wala tiis wuñ leen tegul ci seen dund massathumul basa wa darra wal zulzilu amul ben xeetu persécution boo xam ne nit dina ko dund ci kaw suuf lu dul muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dund na ko ak ñi nga xam ne gëmoon nañu projet boobee fukki at ak ñett de persécution boo xam ne amul benn moment boo xam ne lu dul ne méttitu démb méttitu tey da koy gàcceel ngir tar yonent bi ne leen kuffu aydiyakum wa aqimu salaa alxuraan wax leen ko tey leen seen loxo te ngeen def seen def defar seen digganteeg seen borom subhaanahu wa taala ndax li fekk seen digganteeg seen borom subhaanahu wa taala dëgërul tamkiin du mën a am sawra du mën a am parce que pareegu leen dëgg dëgg dëgg dëgg pour mën a dékku pression yi nga xam ne bés bu ngeen yoree nguur gi pression yëpp dañ leen di war ndax bu ngeen fexee ba fatxu màkk daal di ñëw 13 ans ak 2 ans muy 15 ans ñu war a dugg ne dañuy am umra waa màkk ni mukk doo fi umra tegal leen ay charte yoo xam ne ci dialogue ba amul benn point boo xam ne arrangé na yenent bi alayhi salatu salaam ak ay saxaabaam Omar al Xataab ne yow Babacar waxal ak sa waaja sa waa ji mooy Muhammad ñu ragaluñu tiituñu te ñëw nekk ci dëgg waaye Babacar ne ko kii dañ koy digal innahu maamuur dañ koy jox ndigal bu fekkee xaswa mi bañ na jóg yës na mooy ne dañ ko digal ne bul jógati jamono boobu Oustaz Makhtar mbir mi metti na woon sahabi yonent bi ne wat wat len ngeen loj ñu ne lank nañu dañoo nam palé ba dañu bëgg dem tawaf sanni jamra dem musdalifa wuquf arafa a parallelisme way bi yonent bi alayhi salatu wassalam dugg see bi bir amna ño pen yi ñu defoon crime yi ñu defoon دلي ينو دفون بني لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موي لان لا موي ات نان لين بي نين ات با خامن كي موي واخ سيو مو موريون باي تخو يرنتي بي علي رسول الله يكتي كاد يو خامن كو ديف ني باي رسول الله فان غي جار بانيو امنيستي لا امنيسي ماكو يور ne reconnaître li nga xamne mom moy mooy bi mu def reconnaître bi mu ko reconnaître moy ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam yonent bi nek dug nga ci l'islam tu es pardonné mais man yonent bi duma faté ndax jëf ji dafa ñaaw jëf ji dafa ñaaw lool li tax mom man la pardonné di nek ak yow moy buma togaté yow oustaz Makhtar yow wax ci yow bu jakarlok man ndax sayuma jakarlok yow rek daf may fàttali bis bobu kon amnesty yagna waaye il faut que ñu situer les responsabilités parce que buñ ko bàyyee nii rek mëmbastal ko ñoom ñii waa kër Basiru duñ ci fee duñ duñ ci set il faut que mu am tribunal boo xam ne dafay ñëw reconstitution des faits ku ci nekk lan mu ngi sa cër ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci suuf di xëcc ficelle yi ñu xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo bëggoon taal réew mi ñu mën leen dugal ci loo boo xam ne dañ leen di observer duñ leen beddi de waaye jéego bu ñu teg ñu xool leen ndax duñu delluwaat ca loolee nga xam ne moom la ñu nasoon ci mim réew waaye bu ñu ko deful rek duñ leen mën a setal ci li nga xam ne xew na fi yëpp d'accord kon nag justice dafay am du chasse aux sorcières mooy képp koo xam ne taxawoon nga ci wàll gële rek faw ñu jàpp la faw ñu tëj la faw déedéet loolu boo ko defee da nga dañ la jël pour nga pour nga tabax yow nga ñëw di commencé toj di ubbi sa bopp ay ay ay front yoo xam ne yokk sa bopp ay noon yoo xam ne ay soppi la ñu woon démb kon oustaz léegi mhm. noonu lay taayalee jotaay bi ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jëlee li nga xam ne moom mooy nguur gi dafa def li nga xam ne mooy reconstitution des faits kenn ku ne reconnaître say bàkkaar ndax doomu aadama yi nga xam ne reyal nañ ñu xam ni ñii ñoo ñu reyal ñoom ñu mën a baale. def seen dëy parce que bu dul loolu kenn ku romb rek ñu yaakaar ne yow la te su boobaa ñoom ñu ngi ci fitna goo xam ne dootul dakkati mukk ba yowmal xiyaamati. pour ñu mën a dëj seen dëj daal nañu xool amnistie bi jaar ci assemblée nationale. woote fa benn projet de loi waxuma proposition de loi projet de loi. boo xam ne dafay jóge présidence ñu kase ko.

Euh, bi muy euh, jublu si fit yu bari euh, dalutoon xel yu bari dalutoon ba ni mu mujjee beneen bi ci cadre général la ñuy waxtaanee ci liy xaar gouvernement bu bees bi rawatina point bii nga xam ne moom lañ souligné mooy lu jëm ci wàllu justice am na loo xam ne dafa jëm ci wàllu économique am na loo xam ne dafa jëm ci wàllu social am na loo xam dafa jëm ci wàllu dajalewaat Sénégalais yi mais am loo xam ne ay dossier la yoo xam ne ni dossier justice la bari na dossier yoo xam ne président Macky Sall mi fi nekkoon moo ne moo ci tegoon concam ndax yooyu dañuy wéy rek bàyyi conc ba mu yóbbaale ko wala am na ci dossier yu war a ubbiwaat ndax exemple bi mu ñëwee 2012 yëkkati woon na dossier këré yi këre yi waxuñ woon ne dañuy topp ku bay ay toolam am ca xaalis waxuñ woon ne ku dañuy topp ku jël ay nagam di ko sàmm am ci xaalis waxuñu woon ne dañuy topp kuy liggéey ñu lay fay nga denc ko muy sa xaalis mais ku jël xaalisu réew mi da nga ko delloo si waat ñu dooroon ko kenn ñaar lañ ci jot a téye ci liste ñaar fukk ak nangam ñu xëy ko bàyyi ba loolu fi mu toll nii foofu la mujjaat ci biir tamit nguuram ñu gis ci ay rapport OFNAC yu bari yoo xam ne nii ba léegi rapport yooyu noonu mu nga tëdd fa mu tëdd li ci mujj Sénégalais yëpp doon xaar ne lii moom dafa war a leer mooy mbirum euh, Covid bi jamonoy restez chez vous ndekete yoo gars yi nga xam ne ñoo doon wax restez chez vous ñu ngi woon ci mille milliards Covid bi di di sëq ak euh, euh, saax saaxe loolu enquête bi dem na ba ñu boucler ko ba nga xam ne digg woo na ci ñi ñu war a woo déglu nañ ñi ñu war a déglu waaye loolu ba fii mu toll nii dégguñ ci kenn koo xam ne ni taxawal nañ la ci kanamu àttekat pour déglu la ci yooyu di ay dossiers yu bari yu tëdd ci biir bi ñuy wax mille milliards milliards Covid bi wala laata muy feeñ fekk na yu bari xew fi tey bu ñuy wàññi diggante 2021 ak tey ci li ñuy tudd ne loolu la ñu xam wàññi ko ci ay bakkan ñuy tudd juróom-ñaar fukki bakkan wala juróom-ñett fukki bakkan yoo xam ne ni tëdd na ndax bakkan yooyu dañuy tëdd rek ñu delluwaat ne noonu nañ dellu ci jàmm wala baax nañu bakkan yooyu lu leen tëral ndax du ay fitt lañ leen rayee du lasper lañ leen rayee du dañoo jël paaka jam leen ko mais ay balu fetal lañ leen tiire ndax balu fetal yooyu fetal yooyu anamu d'abord dañ doon dégg ñuy wax waxu 40 milliards ñu nu jëndee arme ci Sénégal est-ce que dañuy ñëw rek jàmm jàmm dajalewaat sénégale yi rek léegi arme yooyu fu mu ne lu ko fi dugaloon lu tax ñu dugal ko fi yenn accusation yoo xam ne aw nit def nañ ko wane ne kat xaalis bu ñu waroon a yóbbu fële la ñu jënd ko jox ko ñi nervi yi ñu doon gis ñu tuddee leen ay nervi ñu jaxasoog policiers yi ñoo ñooñu anañu d'abord oto yooyu ñu waroon fu mu jógee ñan ñoo leen jox oto ya ñu leen doon fay armes yi sax surtout armes yi armes yi ndax de police moo ko récupéré téye ko wala wala yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne ndax dañuy bàyyi rek ñu delluwaat ci jàmm-jàmm jubalewaat sénégalais yi continuer liggéey wala yooyu war nañ ci dellusiwaat leeral ko ba mu leer bu ñuy baale ñu soog di wax waxu baale jërëjëf Cheikhul Muxtaar euh, question bi am na solo lool euh, surtout fi nga tàmbalee ñuy wax ni rek euh, fii lu ñu fi indi tey comme ni nga ko waxee dafa am noo xamante ni xëy na am nañu lu ñu fi dugal ak lu ñu fi ñaan ba tey Sénégal

émission à bi euh, ba may télé yi ba léegi defe ni euh, émission bii nga xamante la ñëpp a taxawee légui du di jox sénégalais yi li nga émission de qualité mm-hmm. émission de qualité weesuwul li fi jaaroon ñu ne ci waxtaan seet li nga une ni ci doon la ca ñu ba te comme ni ñuy wax li fi jaar bari na xëy na xeexu politique la woon boo xam ni politique politicienne bu bon la bu mu daan doxalee Sénégal waaye ñaan nañu yàlla loolu jóge fi te mel na ni nag yàlla yàlla jëlee na ko fi mm-hmm. parce que ñi nga xamante ni ñoo taxawloon système boobu politique politicienne nga xamante ni wax dëgg da leen di dafa mel ni dañ dañoo xuloog moom nu ma def rek ba bokk wala nu ma def rek ba am wala nu ma def rek ba jël nguur gi baax na moy esprit tubab bi nga xamanteni mom lañu la ñu mooñaaleel ñooñu te yàlla dafa melni mabal na ñep te ni ko mabalé daf ñu indil ño xamanteni euh boko sété nit ñu bari ñun surtout ñun ñu daan wax ci ñun ñi wax ci télé yeeg radio yi te yalla baaxe ñu au moins ñu ñëmé dëkk parce que tok nañ fi jamono jo xamni ku wax dëgg ñu la da nga faral Ousmane Sonko da nga faral Pastif parce que lan mo doon chance am mom moy dafa ñëw fekk dëgg mu taxaw ci kon nitu deug ak ku bëgg deug ku gën deug xam ne ko mom te ngay jullit bo ñëwé mëno def lu dul aligné wu ci mom man émission bi ñu doon def Afrika 7 yan saa da nga daan dugg sax ñu naan da ngeen di jeng man leen ñun naka lañuy mëna jengé te ñu gis ay fée laq dom door dom gis nañ ko fi gis nañ ko fi wax lool neex gis nañ fi ño xamanteni ño daan xey parce que Saïd laal nako légui lu ñu mata baye xel ñooñu tamit il faut ñu lijjanti seen i mbir ndax seeni wax a ngi fi jógee mooy ñi nga xamante ne ñoo daan xamb taal bi Sénégal nga xamante ni lu fi lu fi tàkkoon ñoom ñoo ko taal xëy na yàlla dimbale nañu ba yenn saa yi dama naan Sénégal xaw ma lu ñu defal yàlla waaye nag bu ma ko waxee dama sama xel day dellu ca mag ña ma xam ni mag ñi kon ñoo fi liggéey loo xamante ni yàlla day mooy protéger Sénégal ci boppam gis nañ fi ay nit ñoo xam ne dañu gën rey leen nit ñi nañu rey ñi ñu war tej kasso ñu tej leen han mhm. ah, ñi war sonal ñu sonal leen ñen mhm. seen wax yaangi ci juugé mhm. am na ñoo xam dañ doon agresser suñu constitution ci seen yu bakkan agresser constitution bi la daan wax man lay wax man parce que dañ daan ñu constitution bi wax li ñom ci seen bëgg-bëgg ñu daan dañ koy tourner di wax li leen neex jamono yoy dama doon wax ñi dañ leen wara porter plainte parce que li nga xamanteni ni charte ndayu réew ñu jubboo ci ñun ñepp ñu mom ko am ño xamanteni seen intérêt tax ñukoy koy ñoñu duñ leen wara a attaqué kon li fi jaar bari na tay ñu gis ni yalla genn nañu ci ci génnin yi nga xamante ni génnin rafet la donte metti won na man dama naan euh, euh, Ousmane Sonko ak Jomaay euh kasso nekkoon nekkon ya un mois kenn ki ñu ne ci 9 9 mètres sur 3 la nekkon tay ñu ubbil ko palais bi diko won palais bi yëpp ni mel kooku ku ci bàyyiwul xel ni yàlla rek mooy yàlla da ngaa dof parce que nag dañoo bari jullit yu dof yu mel ni man parce que yàlla bis bu nekk mu won ñu boppam won ñu boppam moom mooy day fekk loo xamante ni ñëpp bëgguñu ko woon mu jékki-jékki yëkkati ko Ousmane Sonko damay wax nii lan la gën a taaroo nit ñi du taar du alal hmm? du du du par exemple euh, euh, xam-xam amul dara lu mu ëppalee lu mu am te sénégalais yi amuñu ko pourquoi sénégalais yi sopp seppi ko def ko muy l'homme le plus aimé du Sénégal fii mu ne mooy l'homme le plus aimé du Sénégal parce que dafa setal boppam ba pare taxaw ci dëgg taxaw ci dëgg boobu mu yokk ci résilience moom la tubaab naan résilience mooy muñ yéen yéenay borom xam-xam yi xam ngeen li yàlla wax ci muñ ñu koy fooy ñun xale yi naan ku muñ muñ mm-hmm. tey ñoom muñ nañu mooy li nga wax sànq duñ duggee pare dañ doon sourire. Mhm. <laughs> te am na ay jamono. Mhm. kenn bëggul woon nekk seen place. ndax ni leen doon martyriser parce que il faut oser le dire la vérité. Mhm. dañ leen doon martyriser di leen di di dal seen kaw jël ñoo xamante ni ñoom xooluñu dara lu dul écraser leen mais ñoom ñu ñu ñu ñu doyloo yàlla dëkk yàlla ba tey mu ngi nii tey ñoo jiite kenn kay jiite Sénégal yëpp. keneen ki tamit lu mu fi waxul du fi am. ki jiite sax tey. comme ni comme ni borom xam-xam yëpp di wax mooy ki nga xamante ni mooy fale koo xam fal na ay ay maire fal ay député tay mu fal président kooku ëllëg buñ ko joxé président da ko mérité. Mm. yalla ko fayal bopam mm. te li jaaxal ci ci li ma neex ci euh, génération bi ñëw xooluñu seen intérêt personnel Ousmane Sonko tay bu xolone intérêt personnel am Diomaye Faye du ko jël. te kooku ñëpp ci ñëpp ñëpp ko ñëpp ko nangu bu doon yeneen politiciens yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dañ naan sama bopp ou hmm. am na yeneen parti yu ko def naka lañ def naka la deme Moustapha ñas ak Tanor Dieng dem si yàlla si lan la ñu perte woon élection 2012 yi ku ci nekk naan man la PDS la lan moo tax demul Karim Wade wala wala wala wala kii keneen keneen ñoom ñu ñëw def pax yu bari parce que dama dama toog di def émission ak daam ma ni ko moytul booy yi ñii ñëw pour politiciens te yàlla xam na bis bu mu demee ba ci élection yi pax yu bari la ñu am ndax janax lay bari pax mu ne ma ah, ma ne ko man maa la wax li li ñuy insister nii dañuy yóbbu gaa yi ba teer Ousmane sonk mooy plan A ba Z moo tax ñuy gërëm tamit slogan parce que ki ko génne mooy El Malick un grand communicant kooku tamit projet bi li mu ci liggéey rëy na parce que bañ ko ba ko Pape ngay Ndiaye laajee ni ko yéen da ngeen doon wax sonk tey ngeen indi jomaay mu ne mu ne ko jomaay mooy Sonko. tey defe naa ne slogan boobu bokk na ci di fal jomaay xalaatu politique boobu mm-hmm. nga xamante ni dafa nekk ci xale yi nga xamante ni parce que xale mën na mën na mën na toog fii comme li may wax toujours mag mën na toog di gis fële mais xale mu ngi gis fii mm-hmm. fi jàmp kon defe naa ni ñoom seen génération ñoom ñi nga mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoom la yàlla xëy na jaarale seen loxo yónni leen pour ñu defar Sénégal ndax bu demee ba ku mel ni jomaay Sonko taxaw naan moom moo kooku esprit grandeur la. dem bàyyi man maa ngi gis dernière euh, dernière euh, euh, seen seen kii bi amoon Kër Massar. mooy seen seen méga meeting bi. mais Diomaye moo doon wax Sonko xoolal ñoo yow yaay sunu candidat te dañ lay yóbbu ba pale. ndekete moom Sonko koy yóbbu pale waaye Sonko tamit moo koy accompagner. ndax tay <laughs> boo gisé ni ñu àndee moom mu mujjee yobu sonko palé ndax mo falu sonko top ci gannaawam lool lan moko waral moy sincérité bobu ñu am moy taqwa bobu ñu am moy taxaw ci dëgg bobu nga xamanteni mom lañu taxaw bëgg changer li nga xamanteni mo jagul seenu réew lool nak buñ ci excès tay dañ koy santé yalla santé ko mag ñi ko tamit le peuple sénégalais ndax peuple sénégalais bi lu nekk jot nañ ko am na ñoo xam am na jamono yoo xam ñëpp stressé ñëpp stressé bëggoon nañ lii gaaw a jeex moo tax ñu yàkkamti woon élection mm-hmm. te yàlla def na ñu dugg ci comme ni nga ko waxee euh, Afrique bi Macky Sall président Macky Sall poussé élection yi lu nekk yàkk nañ ñu ko mais tey ñun ñooy référence bi mm-hmm. boo demee ci plateau tubaab yi man dama leen di seetaan nga dem ci plateau africain yi ñëpp dañ naan noonu la Sénégal moom daf ñoo jaaxal kon loolu peuple bi moom la ñu njukkal boole ci xale yi nga xamanteni dañu ënd benen façon politique bu nga xamanteni mom moy vrai politique nak moy vrai politique macha allah léegi li nga li nga wax ci ci ci ci euh amnesty amnesty bi euh dafa am lo xamanteni logique la xeyna ñom def nañ ko mais comme niñ doon wax amna ño xamanteni nenañu amna ci borom xam-xam yo xamni nenañu mën nañu voter ay loi dem dindi ko mais amna ño xamni tamit nañ ci baye xel dañ ni dañ ko verrouiller dañu tere sax ku ci wax ni lolu ñom xam nañ liñ def mais li doon yoon nga xamante ni moom la sénégalais yi doon xaar moom la ñëpp di xaar même ñi nga xamante ni bénéficié wu nañu ci ci am na si bi moo doon ñu xam ñi def ba pare xam ñi ñi ñi loru ñu euh, ñu ñu defal ñi loru ñi kii euh, ñi ñi def ñu wax leen yéen a def ba pare bu dee dañ leen di baal ñu baal leen saa it wax na ko léegi yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam turandoo li ñu wax mën nañu baale mais duñu fàtte kon loolu xam naa ne buñ demee ba ca kanam mm-hmm. Euh, sénégalais yi man wóor na ma nii comme ni ngeen ko posé nii dinañ dem ba def ko cas social parce que nag lu loxo def loxo mën na ko dindi. Mhm. waaw donc mën nañ dem ba def ko cas social ñu ne nag bu dul dara nañu def ay enquête yu leer ba xam ñi def ndax ëllëg duutuñu def parce que yow résumé nga ko ñi nga xamante ni ñoo fi nekk bañ a sañ a def loolu. Mhm. kon donc man je pense que euh, bu ñu demee ba ci kanam. ak li nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni dañu falu parce que tamit damay wax cinq ans du dara cinq ans lu gaaw la kon donc ñoom gis naa ñu wax ci benn ci ci seen i kàddu ni ñoom bu ñu ñëwee du ñu fayantoo du def dara mais justice la ñuy bàyyi mu def liggéeyam ñoom ñu focus ci li nga xamante ni mooy développement réew mi joyanti li nga xamante ni moo dëngoon ba pare indi loo xamante ni mooy tax ñëpp.

ñii ma gis am na ci ñoo xam ne dinañ toog di déglu plateau yi mën naa waat ni lu ci génn ci njariñ mën nañ ko jël doxalee ko kon nañuy proposer mm-hmm. euh, moment bi mm-hmm. te télé yi ma leen di ñaan ak rajo yeeg yooyu débat yu stérile yooyu nga xamante ne du débat dara débat politicien la ñuy indi ay borom xam-xam yu mel ni yéen. Mm-hmm. ngeen toog di waxtaan di jox seen seen seen seen i seen i xalaat. Mm-hmm. ci réew mi lu ko jëmale kanam mais pas loo xam ne da koy diviser. Euh, kii yàq kii defar. mu mm-hmm. comme li ñuy wax rek fukk di gas fukk di suul. defe naa ne kon développement du am kon ñu lay gërëm bu baax a baax. macha allah am na solo am na ah, solo am na solo jërëjëf euh, Hadj Mamadou euh, Moustapha Fall. leen fàttali yéen a ngi déglu seen émission Al fii ci GTV tey ñu dalal fi Mamadou Moustapha Fall dalal fi tamit Abdourahmane Lay ak euh, Oustaz Saïd jàll mi ñu baaxoo di di ci ànd ak moom Abdourahmane gannaaw ba ñu la euh, nuyuwaatee dalalaat la euh, ñu bàyyi la yow tamit lan mooy sa lecture ci élection yi ci cadre général bi nga ci bi nga ci def waaye tamit ci yi nga xam ne nii ñu ngi koy xaaree gouvernement bi dossier justice yi nga xam ne nii mi ngi mi ngi mi ngi taxaw déjà li ci mujj rek mooy dañuy wax waxu amnistie amnistie bi nag euh, xëy na am na benn bis ma tuddee ko est-ce que président Macky Sall la ma suuf ci jaan <coughs> ndax la ma suuf ci jaan ndax boo dégloo comme li mu wax léegi euh, Sonko ak Jomaay bi ñuy campagne euh, dégguma benn yoon fu ñu waxee ne bu ñu ñëwee lu loxo def loxo mën na ko dindi. kañ laa doon dégg solo slogan boobu solo slogan lu loxo def loxo mën na koo dindi. mooy bi ñuy voté loi bi Sonko génn gut mais bi Sonko génnee ba toog def conférence de presse am wax ne effectivement gisee naa ak président Macky Sall waxtaan nañ ci ñett point yi dëppoowuñ ci déggatuma slogan boobu man nag <laughs> man man nag sama xel mi dama ko moom moom goo xam ne dama am <laughs> dama am sama sama lecture boobu boo xam ne beneen lecture la xëy na mais damay laltaay rek ci ci question bi li nga wax moom ma ko fàttali ndax ci campagne bi maa ngi topp discours yi di déglu du ñu fayantoo mais dañuy bàyyi yoon doxal doxal lan dox doxal liggéeyam wax boobu it da ko dañ ko vérifier wax boobu yi leerut wax boobu it nuance la du ñu fayantoo cest di lan mooy fayantoo sénégalais yi demandé wuñ kenn ne boo ñëwee fayantool fayantool mooy man liñ ma def danaa ko def ki ma ko def kooku yow la ak kooku mais kee ñu rey doomam du yow yaa koy fayul kooku yoon a koy fayal <laughs> kooku soxlawul nga fayantul ko moom effectivement yoon lañ wax ne na ko doxal yoon buñ ko doxalee yow après yow sa wàll mën nga ne baale naa ko man dañ maa accusé dañ maa tuumaal dañ maa wax nangam dañ maa gazé dañ maa nangam loolu Sonko moom après mën na ne moom baale naa ko après yoon kooku du fayantoo loolu mais kële moom bu ko neexee mu ne damay fayantoo kooku du yaay toog place <laughs> ah <laughs> mécanicien ba la nekk ca baaliye ba ñu jël fetal tiire ko ci bopp doom ji xale ba woor kooku baay jooju ak yaay jooju noonu du benn sonko mooy toog naan non man baale naa wala duma fayantoo mais loolu defe naa moom laay tuddee lëmas jaan ngi nag li ma tuddee lëmas jaan mooy am na loo xam ne nii ci kaawu Macky arrangé na leen mais est-ce que buñ souligné kaawu Macky duñ souligné waale kaawu Sonko <laughs> moo tax ma ne est-ce que amul lëmas jaan ndax nag dañu am ay nit yu ñu accusé terroriste force occulte dañoo taal bus dañoo doon def cocktail molotov dañoo nangam nangam ñoo ñëpp dañoo bokkaale ci biir ndawtalu ndawtalu na bi <laughs> léegi bu ñu delloo si waatee loi bi ne lu loxo def loxo mën na ko dindi loolu tamit est-ce que <laughs> nekkul am na mbir yoo xam ne su boobaa am na fu ñuy bañ a yàgg <laughs> yooyu yëpp dañ cee toog ñu waxtaanaale ci am na loo xam ne sénégalais yi nag duñ toog rek ne non lépp lépp jaar mais am na yoo xam ne in faut que ñu delloo si waat ko ñu def ci ay jàngat la ci des nag décision bi sénégalais yëpp dañuy toog ndax ñoom lañ jox fi mu toll nii li ñu leen jox am na loo xam ne nii bu ñu demee bay taxawalaat assemblée nationale pouvoir boobu sénégalais yi ñoom lañ koy jox yenn yi ñoo ko mën a wéyal mais nag waxtaan la ñu wax loo xam ne balaañ caa yegg ku ci nekk am na ci xalaat boo xam ne da nga ko ci am lan mooy sa lecture ci élection yi d'abord laataa ñuy ñëw ci dossier justice yi xaar jërëjëf euh, Haj Matar yaakaar naa euh, orientation wu débat bi leer na. Mhm. ci ñu ko faram fàccee. Mhm. man peut-être jàngat ma ciy def mooy dañu dem ci benn tournant bu décisif boo xam ni peuple bi moo jël responsabilité. parce que quand même ci nguuru président Macky Sall ci fukki at ak ñaar yi mu fi def organiser na fi fukki élection. fukki élection fukki élection. est-ce que. C'est 2012 une génn présidentielle. Mhm. dem législative. Mhm. ñaari weer lañ tek dem législative. Mhm. ñu tek ci at ak genn ñu dem local 2014. tegaat ci at ak ñetti weer dem référendum. waaw wala déet ci révision constitution. tek ci ñetti weer dem élection au conseil. dajale conseil départementaux et municipaux yi pour ñu fal au conseil. c'est en 2016 2017 ñu demaat élection législative fallait ay député donc c'était au mois de juillet 2017 at ak genn ñu dem 2019 présidentielle 2019 Nous waroon ci defaat aussi élection locale ñu pousse ko de deux ans mu dem 2022 ñu organiser ñaari élection janvier ñu def locale juillet ñu def législative at ak genn wàll lañ ci defaat élection présidentielle moo tax élection yu bari na élection yi bari moo tax dëkk bi politique rek lañu doon def. dëgg rek lañ doon def. amuñu temps bu ñu liggéey. Mm-hmm. amuñu temps bu ñu waxee ci développement. Mm-hmm. amuñu temps ci ci même ni ñu sécuriser sunu réew. Mm-hmm. parce que at boo boo dugg rek yaa ngi wàcc élection bi waaj a ñëw. bu ko defee ñi mel ni man di commencer lal seen ay plan di organiser. donc loolu jàpp naa ni euh, peuple bi dafa dafa dafa sonné rupture.

Euh, bi muy 2019 pour am deuxième mandat. il a été bien réélu parce que évaluation bi ko Sénégalais yi defal du 2012 ba 2019 déedéet 2016 ba 2019. mooy bi mu réformer constitution bi. wàññi mandat bi jëlee ko 7 indi ko 5 ne ku am benn du amaat. Mmh. man bii mooy sama. dernier. Mmh. lii laa sóob sumb buñ ma falaatee lii laa yeggali damay dem looloo tax ñu joxaat ko mm-hmm. Mm-hmm. man Bokk Yaakaar laa nekkoon mm-hmm. mais booy campagne avec facilité da ngay convaincre nit ñi parce que ah kii kat wutaatul nañ ko jox benn rek nañ ko jox benn lii lay terminer dafay dem waaye nag bi ñu demee ba ci biir ñu ci rax naan bii bu njëkk bi bokkul ak foofu lañ ci dugal loo xamante ni sénégalais moom moom moom bëgg bëgg na ko ko yey waaye bëggul ko ko nax waaw ñu ne ah kon ñii fi lañ jëm ak ñun mm-hmm. kon nag nañ takku taxaw mm-hmm. foofu nag troisième mandat la bëgg. moom la bëgg. te mm-hmm. gaaf la Sénégal troisième mandat. troisième mandat. <laughs> foo ko tuddee moom sénégalais yi jóg. dañuy jóg <laughs> uh-huh. donc foofu pour man. ci la ko jëlee ballon bi au mm. rebond. waaw téye ko téye ko. Mm. parce que xamna ni li le sénégalais d'accordul mm. kon man ci li lay accès sama politique. parce que mooy politique aussi bu la féké askan bi mo la tax a li askan bi bëgg ci kay. ngay nek man je le dis parce que c'est un constat bi ñëpp def. et que bu fekkente ni yegg nañ ci fuñu amul fi président euh, Macky Sall la jaatul 3e mandat. Sonko acteur majeur la ci. Mhm. parce que il a su attirer l'attention des sénégalais. Mhm. ci ne acte yi ñu posé. Mhm. li moy nek finalité bi. te il avait raison. na bu ñuy ñëw nak ci mandat yi nañ leen leen di gérer. tey bu ñu jëlee dëkku parce que ci ñom la def référence ci walu démocratie. ñom japp nañ né leadership bu nguur ci fukki at la. bu sé ba passé fukki at da ngay miin jotaayu pouvoir. ba dootuloo jox gëdd liggéey bi ñu la joxoon. Mm. parce que sa quotidien la. ñu ne bon bu ñu la joxee mandat bu njëkk pour cinq ans at bu njëkk bi da nga koy da nga koy euh, da nga koy consacré ci dindi li naqari askan bi mm. ci nguur bi fi nekkoon mm. at bu njëkk bi loolu mooy sa sa sa priorité. mooy réforme yi ñuy indi. mooy défi bi daal mooy défi bi. loolu nag boo ko defee mooy li wolof di wax rek. cin bu naree neex bu baaxee xeeñ ci sa premier at ci ngay poser ay actes yu fort yoo xam ne dañuy naan ah oustaz Makhtar mii dafa ñëw pour redresser pays bi comme 2012 président ah, Macky ñëwee immédiatement wàññi dund bi wàññi dund bi waaw courant coupé tout hmm. poser ay actes yu yoo hmm. xamante ni hmm. yu foor la yaakaar judduwaat ñu mën ko muñal toog di xaar ko ñu ne ah kon comme def na lii buñ ko bàyyee mu liggéey dina def leneen comme caamen bu dem restaurant rek ñu <laughs> jox ko entrée <laughs> jox ko gerte yooyu ak kaasu ndox mu lii di moom <laughs> dina neex léegi nag bu ñu ñëwee ñaari at ñoom yi ñu ci teg foofu moom ci lay joyanti yu bëree bëri yoo xamante ni dañu jàpp ne lii moom war réew mi waratul doxee noonu hmm. ñaari at yi ci topp ñaari at yi muy terminé premier mandat am nag foofu moom ci lay commencé tàmbali ay projet hmm. mooy ñëw na def rupture hmm. joyanti na li dëngoon ci régime bi bi weesu léegi nag lancé na ay projet projet yooyu lañ ko mayaat juróomi at moo tax bu demaatee campagne mhm. bu gañee ci juróomi at yooyu mhm. la mu tàmbali lay yeggali mhm. waaye tàmbali loo xamante ni naam du ko yeggali ndax day terminé mais keneen kuy ñëw ci loolu lay sukkandiku pour moom tamit joyanti li dëng daal di indi moom politique am macha allah mais bu fekkente ni nag fii Afrique moom boo ñëwee da ngay màbbal li fi newoon lépp parce que politique la ay ko am xam-xam ko amul xam-xam da nga du donc gestion président Macky Sall conseil constitutionnel né président bi dafa bëgg mandawam jëlé ko 7 indi ko ci xam 2017 la présidentielle li te jotagul

jotul def liggéey bu ko mënoon mayaat beneen mandat maintenant ci deux ans nag yi ci tegu wax dëgg yàlla même 2017 bi la ubbi woon tamit dossier Sonko defe naa bi mu koy dàq 2016 la wala 2017 2016 mais boobu boobu euh, Sonko amaguloon yenn dimension c'est-à-dire nit ñi dañ ko doon naqarlu rek mhm. waaye jaralul woon kenn mu génn non boobu xamuñu ko woon sax Manaaru Moustapha Diakhaté gi boobu entourage ñu lay xooloo noo booy bi mi ngi tàmbalee wax di dayoo moom moo ko dàqalu moom wax na ko moo ko dàqalu voilà donc yooyu dafa dafa nekkoon lu tout tuuti premier mandat. Hmm. maintenant bi muy ñëw deuxième mandat bi foofu nag lañu ñu jàpp ne tous ces projets ces grands projets réalisation bi nit ñi leen gis seen bopp. Hmm. Covid bi daal di yegg si. waaw Covid bi yegg si. Hmm. parce que Covid bi euh, mënoon nañ ko ñun taawu Sénégal parce que dañ jàppoon ni rek feebar la buy buy dal chinois yi. ñu jékki-jékki ne dugg na Europe jékki-jékki dugg na Afrique. Bonjour, Sénégal ñu ne premier cas de dugg na mhm. pendant deux mois on a ko doon gis yeneen du Covid 19 mu am encore bu mu indi ci économie ci ci liggéey aux arrêts. Mhm. mais les sénégalais tamit jël cadres. mu pouvoir pouvoir kilifa diine yeeg. Mhm. yaakaar naa jour boobu sax la Ousmane Sonko mu njëkk a dugg Palais. Palais waaw ñëpp def sacrifice. ñëpp boole lu leen neex ak lu leen naxari. mobiliser ay fonds wax na ko de la nation. kàddu gaa ngi noonu waxal nan nga bëgg ñu mu jël ay mesures yu mhm. indi couvre-feu. ne kenn waratul jóge Thiès dem Diourbel. Mhm. na oto yi taxaw. port bi ñu tëj ko tëj jàkka yi tëj lépp ñu nangul ko ko. mu dégager 1000 milliards. Mmh. oustaz junni milliards. Mmh. Mmh. ñu tegle ko ceeb yi port. muy dox di défilé ci ceeb yi. mais nit ñi japp nañ né état bi jël na acte yu fort yu fort yo xamni ni euh, loolu la situation bi la laajoon. dakate derrière. nit ñi ngi sax saxé xaliss bobu waaw. mais ci façon boo xamante ni ku ko dégg. te am sa mbokk bu loru ci Covid bi. mais da ngay génn si ñoom. am na ñoo xamante ni seen Covid yeggul woon ci benn station bu tax ñu ñàkk seen bakkan. mais respirateur la ñu amul woon. problème gaz yu manqué. ñii ay gaz yu manqué. Mm-hmm. lal yu fees yu amatul lal yu fees hôpitaux yu amatul. prise en charge prise en charge. Mm-hmm. ñu jël xaalis yooyu yii ñu orienté ko ci ay hôtel. Mm-hmm. di ko fayal ñoo xamante ni.

indique le deuxième mandat de Djotou Koligé. Moi, 2019-2020. 2021. 2021. 2021. Donc, -hmm. Donc, si 2021, février 2021, nous avons dossier qui est solo histoire du Sénégal. SIF. Djinko, mmh. opposant à ce qui est sa place. Djinko, détournement, nous avons dit que nous avons je suis sif tay en tant que président de la république mom moo wax ko mhm. biñ ko ko waxé dafa non lolu nañ ko tek ci souf ñu né la non duñ parce que dossier bu mag kon ban mo meuna président de la république entourage en ba ba yow li nga japon ni du dara <laughs> ñu lo né dara la indi fi scénario bo un de 2021 à 2024 faf sax liggéeyatuloo est-ce que jaroon na ko. ba ñu yegg si ci finalité boo xam ne sax faf dañu ne dossier boobu dara nekku ci. kon moom deuxième mandat am jotu ci def lu tax. nit ñi bravo ko. est-ce waaye ay nitam tamit ñu bravo la. Mm-hmm. ñaari at yi Covid bi la. Mm-hmm. depuis deux mille vingt et Sonko. Adissar, Macky sur des choses mhm. Sénégal sort voilà diffamation. voilà donc énergie mobiliser

ñoom ndax ñoo ko jëlal ay avocat ñoo doon def ay conférence de presse. voilà ah protéger protéger ko ba pare di ko protéger. dafa affaiblir gestion am affaiblir nguuram ci façon boo xamante ni jàpp naa ne ba mu décidé ne du laajaat troisième mandat ci la ko yooyu yëpp rattrapé ci ay joyante yu war a def parce que xam na ni tardel nañ ko ndax tey ay la yéwén coow li yëpp Macky Sall Ousmane Sonko kii dafa yor nguur. tiyé ko bañ ko ba di samalé nu mu joté nguur gi parce que japp na ni nañuy doxalé réew mi Nam amna ci droit naam àndumoon ak mom ci jamono bobu waye nit buy xex lo xamanteni principe moko ko lal dang koy nangu parce que man euh, programme de renforcement de l'état de droit man mako yoré yore ma maa financier bi donc li joyanti yoon ci réew mi dañ ko teunk bindu ko ba pare amul lenn lu mu ci war a xoolaat hmm. maanaam lu pare la lu état war a jël rek exécuté ko hmm. waaye bu ñu ko exécuté dafa am lu bëree bëri loo xamante ni danañ ko bëgg def duñ ko mën def hmm. parce que citoyen bu nekk day am doole ci kanamu yoon États-Unis lu tax ñu naan démocratie bu mag la parce que dëkk boobu dafa am yoon seen président de la république bi mu wàccee <laughs> dañ ko yóbbu tribunal pour des faits de corruption mm-hmm. waxuñu ko ne yaa ko def waaye dañ ko ne kaay diw nee na nangam mm-hmm. waxal mm-hmm. mais fii tey boo fi yóbbu woon président de la république ci yoon àdduna <laughs> bëgg a tukki <laughs> voilà àdduna bu tukki la voilà donc yooyu jàpp naa ne lu normal la yoo xamante ni nit ñi dañ ko waroon dañ ko war a banaliser. mooy dëkk bu am yoon loolu dafa war a warul maanaam ñoom bi ñuy def loolu yëpp dossier ci kaw dossier covid beeg coono yi fi jaar bàyyi wuñ xel ne askan wi ñu ngi téye mer boobu. di xaar bis ñu ngi ko téye moo tax bi ñuy ñëw. Mhm. ñu ne recalé dañ ay candidats. Mhm. candidats yooyu am nañ ay nit. Mhm. mais gisoo leen ci mbedd mi. nit yooyu dencaat nañu seen carte d'identité. xoolaat alternative. ñu ñëw ne 19 lañu léegi 20 lañu repoussé nañu élection yi. gisoo leen ci mbedd mi. quelques échauffourées ñoo am. waaye ñu ngi toogaat parce que xam nañ ne yàgg yàgg élection yi. biñ ko jàppaate ci 15 jours. candidats yi waroon nañ mën taxaw né ah 15 jours mënuñ ci campagne. waye dem nañ ci élection bo xamante référendum la mujjé né 19 candidats. 17 yi amuñu 10 17 yi boo leen boole. amuñu 10 pour cent ay ah. ci ëppale 2 3e bi 2 la. voilà donc choix bi. Mm. dafa nekkoon entre. Mm. continuité li fi nekk. Mm. jaaree ko ci candidat bi fi président bi fi nekkoon teg muy Amadou Ba. ak. indi rupture. Mm. carrément jëlee fi li fi nekkoon yëpp. Mm-hmm. indi loo xamante ni mën nañ mën nañ mën nañu jural yaakaar. Mm-hmm. ba tax ñu sànnee ko sunu carte. moo mm-hmm. nekkoon Diomaye. mais foofu aussi. falaay laay damay saluer. taxawaay bi ci Ousmane ko am. parce que bu xooloon intérêt biñ ko nee dañuy puusaat élection yi ba le 2 juin. mooy tax nga mën a bokk. day d'accord. parce que mars ak juin ñaari weer rek ci dox. waaye ñàkk d' accord daal ne nañ dem rek. boobu mooy même bu fekkente ni jomaay moo gagné. mel na ni man maa gagné. acte de grandeur keneen ku mu doonoon. Mhm. boo moyul. Mhm. dana waxtaan ak parti yoon. ne leen dañ koy pouse ba juin d' accord naa ko. Mhm. parce que ci laay mën a bokkee. parce que gis nañ fi bu taxaw ne mën naa bokk rek. Uh-huh. <laughs> quel que soit élection yi même bu ñu koy pousse deux ans mën ah, naa bokk rek. Ah. te nit ñi ñu ngi woon ci logique yooyu. def aussi dialogue boo xamante ni. kilifa yu bëri ñing fa won mhm. kenn ku ci ne sa kilifa bu ndaw ma nga fa won tok mhm. ta terewul ba jala bi passé dañ ne déedéet 2 juin dafa dafa dafa sori. nañ ko def ba avant avril. Mhm. kon on a un peuple mature. bo xamni lepp loy looy ak ñom amna na seen benn carnet bu ndaw buñ koy marqué. di xaar ëlëk ba seen ba seen jël décision jot. macha allah beneen bi amna amnistie euh dafa am lu bëri lu ñu war a royee. Rwanda Rwanda du guerre moo fa génocide moo fa parce que guerre mon nañ ne sax ay armée ñoo kay sëkk mais population bi ñoo don rayante ci affaire waaso xeet waaso xeet ci un million de personnes un million de personnes ñu koy joobe fait ci àdduna bi même bu l'en dan dem di di di joxi ji ay ndimbal ay dëkk yu ñu wara jox hélicoptère yi sax du ñu ci kaw la ñuy nekk rek sànni leen ko mais bu ñu demee ba jeexal loolu ñu ne nii fi réconciliation mm-hmm. président bi lan la wax dafa ne réconciliation de mooy jubóole ñëpp mm-hmm. jubóole nag kañu tooñ mooy baale juboo mën a am mm-hmm. ndax tey ki tooñ baalu kañu tooñ baale loolu réconciliation yaakaar naa ñun même suñuy diggante sax. Mhm. suñu àq yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu ah. sekk. Mhm. yàlla duñu ko baal ñun ñoo koy baal. baaloon effectivement ñu def ay commission jël ay magistrats wàccee leen ci gox goxaat. Mhm. bostaanee seetaanee documentaire sa yaram day daw. ndeysaan ñu dajale famille lëmm ñu toog ñu teg benn waay. ñu ne est-ce que xam ngeen lu waa ji def ñoo ñu ne waaw lu mu def ñu ne moo rey suñu way wayjur rey suñu yaay ak suñu rakk bu jigéen ñu laaj waa yi ndax yaa ko def mu ne maa ko def lu tax nga def ko mu ne man ñoom ci seen xeet dañoo boom sama weyjur bu góor ak sama maam moo tax ma jàpp ne pour ma fayu il faut que man ma def leen lii kooku nangu na ke itam xam na ni bu dul ñoom ñoo ñoo ko song directement ña xeetoog ñoom ñoom itam teg nañ ko naqar bu mel noonu ñu ne ah léegi lan moo ciy pexe lu ngeen xalaat yéen ñu ne ah comme ñun ci suñuy mbokk teg nañ ko naqar bu toll nii moom bi mu ñu teg mhm. jéggal nañ ko mhm. ñu ne waaj yow itam lan ngay wax mu ne ah man itam comme man maa leen teg naqar bu leen xañ bàyyi maa ngi leen di jéggalu mhm. magistrat bi daal di acté loolu ñu ne diw mii defoon na crime nangam ak nangam waaye biñ ko yóbboo ci mbokk ñooñu baal nañ ko ci xol bu sedd guy waaye taxul ñu baal ko acte nañu loolu door ko yéegal mu dem ci président de la république mhm. waaye nag booy booy amnistier mhm. ñooñu ñu baal mhm. la ñu listé ne ñu tooñ baal nañ leen kon ñii ñooy dugg ci amnistie bi ña nga xamante ni nag moom kenn baalu leen ndax atrocité yi ñu def ñu topp leen ci ay crime de contre l'humanité mais ñooñu mënuñu leen baal ñooñu yoon dafa dal seen kaw ñu tëj leen après jàmm am. après jàmm am boobu ba tey seen dëkk mooy dëkk bi gën a set ci àdduna bi. macha mhm. te ñëpp ngi liggéey. Mhm. ci taxawaay ci jàng ci leneen ak leneen ak leneen. macha donc pour man. Mhm. amnistie bi. naam baax na. waaye danger bi ci nekk. mooy nit mën na auto glorifié wu. ci ma maa defoon nangam. parce que dara fekk ah, te gis naa te loolu. am na ko ci ci benn ministre bu ne woon. Euh, Ablaye Wade bañ koy daaneel moom moo doon taal ñoom ñoo doon taal. mais wax na ko en direct à la rajo mu ne ah. man maa njëkk a def. Ah. attentat à la voiture piégée. en 88. pourquoi mu sañ toog ci penc. wax ko bi ko ñëpp déglu wax ko. Hmm. parce que xam na ni.